coalition Yewwi Askan Wi nag ña ngay leeral coow li nga xam ne rek moo jëm ci déclaration politique générale Ousmane Sonko ayib da fekki naataangoom nag ne amul benn disposition boo xam ne rek règlement intérieur bi jël na ko jamono ji nag ngir ñu mën a weñ loxol Ousmane Sonko ngir mu def boobee déclaration politique générale président groupe parlementaire boobe nag xam le ni daal lu jëm nag ci règlement intérieur bu assemblée nag dañu faa supprimer woon lu jëm ci poste premier ministre ci atum 2019 loolee waral Le Quotidien yëglekaay feelu ko ne jàllug Ousmane Sonko ci assemblée nationale nag dootul mën a nekk waaye yow ña ngi koy censuré Sud Quotidien moom koy woy wi fi mu toll nii am nag daaneel ginnaaw bi nga xam ne rek groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ña ngay indi ay leeral ci coow loolee nga xam ne rek boobaak léegi ñi fi bokkoon ci régime Macky Sall ak seeni député ña ngay ŋawte ŋawte déclaration politique générale bi nga xam ne rek Ousmane Sonko ne ñu war na koo amal ci assemblée nationale ayib dafee di xam ne ci biir yëglekaay bi na janoo boobee nga xam ne rek moom la ñu bëgg Ousmane Sonko amal ko ak quatorzième législature bi nag du a nekk ndax jëm ci wàllu confiance nag dañu ko abrogé woon ci version bu yees bu règlement intérieur bu assemblée nationale l'info yëglekaay àddu jëmale ci li nga xam ne rek moo soxal ba tey règlement intérieur bu assemblée nationale ci atum 2019 jamono yooyee ci la yëglekaay bi xam ne ni nag ca lañ fa jële woon poste Elimaanu jëwriñ waral ba déclaration politique générale bi nag ñu daal di koy censurer tribune yëglekaay xëy tey jii nag di samp ab laajte ragal ngir jàkkaarloo ak député ci mën ci doon Walf Quotidien nag parlementaire bu yeewi askan wi ñoom ña ngay wàcceel coow li Ousmane Sonko bés bi le jour ne ñoom kay ña ngay secourir Ousmane Sonko ayib dafee na ñuy wax boobaak léegi nag bu yeboo ñu keefal te noppi te xam ne Ousmane Sonko du jaar mu ko assemblée nationale ngir amal déclaration politique général ndax règlement intérieur bi nag jaarul ci yoon Abbas Fall di leeral ci biir yëglekaay bi nag ne Ousmane Sonko jamono ji daal moo yor cëggal gu yëm ngir xam ana kañ lay janoo ko ñii di député yi Cheikh Oumar Sy bokk ci bi nag di leen tontu ne daal déclaration politique générale nag ci coowal orientation budgétaire aji mbergaan kanute moom ma ngay xam ne ci biréglekaay bi nag ne Ousmane Sonko ab ancien député bu xarañ la woon Ousmane Sonko moomee nag ñun ñëpp xam nañu ne ñàkkul courage te ragalul ngir mën a jàkkaarloog ñun kon coow lii lépp nag jaru ko fi woon l'observateur ne ko argument yi nga xam ne rek moom la soppi ci assemblée nationale moo dàq jàkkaarloo bi nga xam ne rek moom la Ousmane Sonko waroon a amal ak député yi Babacar Gueye mi fi nekkoon ancien parlementaire kaw ngir mu bañ a sàmmonteek lu jëm ci wàllu constitution bi ndax waruñoo làqu ci manquement yi nga xam ne rek moo am ci assemblée nationale ngir bañ a dalal kii di éliment Elimaan jëriñ bu Sénégal ndax déclaration politique général nag obligation la ci bépp institution yéenekaay bi ne Ousmane Sonko ci jamono ji nag ci diggante moral ak droit ci la nekk duudu wadd leeral ci biir yëglekaay bi ne diirub ñeenti fan nag groupe parlementaire bu yeewu askan wi mën nañu caa régler lu jëm ci règlement intérieur bu assemblée nationale yéenekaay bi ne fi mu toll nii nag groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ngay waajal ab riposte Sud Quotidien la ñuy àddu jëmale wax ci leneen ma ngay engagé gouvernement ma yi daal di xam ne ne bu yees bi ñu bëgg a indi ci wàllu industriel ak budgétaire ma ngay tracé ay yoon yi nga xam ne rek ca lañ war a jaar ci conseil des ministres bi ñu doon amal niki démb moom njiitu réew mi nag ma ngay exposé gouvernement am xalaat bi nga xam ne am na ko ci ñu daal di doxal nag ab programme bu yees boo xam ne rek mën naa tax ba ñu jooyantuwaat rëq-rëq yi nga xam ne rek moo am ci wàllu industriel bi les éco yëglekaay ne ndajem conseil des ministres bi ñu doon amal kay Ousmane Sonko ak Jomaay naka jamono ji ñu ngi ci kaw entreprise yi moom Ousmane Sonko fi mu toll nii nag bëgg na leeraange am ci doxalin yi nga xam ne rek noonee la këru liggéeykaay yi di doxee 24 heures yëglekaay ne président Bassirou Diomaye Faye fi mu toll nii nag li mu bëgg mooy ñu taxawal ab loi boo xam ne rek dafa jëm ci wàllu souveraineté économique jox ñi nga xam ne rek ñoo di gouvernement bi sañ-sañ boo xam ne rek daañu mën a bàyyi xel nag yeesal yi nga xam ne rek moom lañu ñuy amal jëmale ko ci wàllu wi le témoin àddu jëmale ci leneen bokk na ci wàllu drogue bi lu toll ci 400 jàpp 700 milliards naka démb la ñu ko daal di taal yéenekaay bii di Vox Populi ne lu jëm ci màggal gi ñuy màggal ayu bés gi nga xam ni rek dañu koy xeex lépp lu jëm ci wàllu drogue lu toll ci 400 milliards ci wàllu drogue boobee nag lépp def nañu ko ab dóom 7552 virgule 326 kilogrammes ci wàllu cocaïne 3 millions 329 virgule 972 kilogrammes ci wàllu yamba ak lu toll ci 505 kilogrammes ci drogue bi ñu tuddee xasis daanaka lépp la taal jëppet bokk na ci 7251 yoo xam ne rek dañu koy jëfandikoo ak i comprimé yoo xam ne rek toll na ci loolee lépp boole nañu ko daal koy taal foofee ca diwaan bu Rufisque addu jëmale ci wàllu tàggat yaram yéenekaay bi di Rewmi ma ngay xam ne ne ci wàllu mercato bi nag kii di Elimane ma nga ca Everton ngir amal ay visite médicale lu jëm ci wàllu euro bi nag yéenekaay bi di sampalaat ne Belgique